que lii moom day dagg jàpp bu la neexee tëj bu la neexee bàyyi lii moom dootul dootul ko nangoot sama àdduna wala bu ñu may jàppati dina demee leneen kon nag yéen ñi ñu yebal naa leen dañ leen jàppi maam Assane Mbacke bay boo nag ngeen xoolaat bu baax a baax a baax déedéet parce que su boobaa moom leneen leneen la ñu wax ki nga xamante ne nag mooy Sidna Ousmane Sonko fu ñu jaar parce que ñun mooy sunu candidat mooy sunu leader tey ci politique tamit moom lañ ci àndal ci gëm-gëm ak engagement ak ci lépp kon man ma jàpp ne Ousmane Sonko bu duggee kaso bëgg Sénégal moom moo tax bu duggee kaso xeexal am réew moom moo tax kon man ma jàpp ne ñun Sénégal yi war nañ ko mën a mën a delloowaat loolu te ni ñu ko koy delloowaatee leen rek la muy taxaw résister xeex loolu rek mooy tax Ousmane Sonko libre te xeex boobu nag maa ngi ci woo bépp Sénégalais yi ci woo bépp patriote bi taxaw xeex pour Ousmane Sonko génn ci réew parce que parce que Ousmane Sonko dañ ko war a génne kaso ak lu mën a xew te loolu leen mën ñu ko may suñu force suñu doole ñu ànd booloo nekk benn woote ay marche woo woote ay manifestation fexe ba taxal Macky Sall ci réew mi fu muy dem fu nekk ak ci diaspora ak ci fépp fu mu dem dégg bu tur Ousmane Sonko loolu rek moom mën a tax xañ Macky Sall jàmm ba mu bàyyi Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag moom dina dina ko bàyyi ci nii wala ci ne wala boog man dinaa xeex ba Ousmane Sonko génn wala ma xeex ba fekk ci biir maanaam kaso te lépp lu laaj nag dinaa ko bu leen neexee nag nañ ñëw jàpp waaye lii moom man maa leen na ma taxawoon ci xeexu Abdou Karim Wade ci xeexal PDS lu ko raw dinaa taxawee ci xeexu Ousmane Sonko taxaw xeex ba mu génn kaso wala ma taxaw xeex ba ba daal fekk nga ne ba ñuy jàpp Ousmane Sonko di ko sonal ci nguurub Macky Sall nguurub dictateur Macky Sall man taxawoon naa sa wala sama doom taxawoon na wala sama sët taxawoon na doon xeex pour liberté Ousmane Sonko kon kaso bii du dara maanaam bu leen kenn tiital ci ay kaso ay léegi léegi léegi lii parce que kaso moom maanaam moo ëpp sax sécurité maanaam biti kon nag bu fekkante ne ñoom liñ jël arme muy seen arme muy kaso def ko arme di ko xeexe man Assane Mbacké man moom laa gën a ñeme parce que ku jaar ci daara jaar fu metti kaso du la jaaxal kon nag maa ngi woo bépp sénégalais di ci woo bépp patriote dinañ jóg taxaw xeex jaamaarloo ak Macky Sall ndax nguur gii fi nekk dañoo sonal képp kuy Sénégal ak ku mën a doon bu la laaluñ laal na sa mbokk wala sa xarit wala sa jegeñaar wala sa wéju te lii fi am ni mosu fee am ñu arrêté parce que fu mu laal mu nooy fu mu mu nooy bu bu yàggee dictateur la fi installé te loolu ñu ngi ko fi commencé installé kon nag loolu ñun ñoo ko war a man a bañ kon nag maa ngi leen di woo yéen yëpp ñaari date yoo xamante ne woote naa ko pour ñu pour pour rassemblement benn bi xale mbàkk yi ñuy jàpp ak xale yi ñuy jàpp le 20 octobre maa ngi woo képp kuy mbokk wala ngay ndey wala ngay bàyyi wala ngay wéy wala ngay loo mën a doon nekk xarit wala nga xame maa ngi lay woo Mbàkke ñu def marche pacifique boo xamante ne di leen wane ne doomi Tuubaa lañ jàpp doomi Mbàkke lañ jàpp ndax ñee nekk ci kaso ba ñu ñoo leen mën a dimbale ñoo leen mën a xeexal waaye bu ñu leen bàyyee noonu rek faalewuñu leen ñu leen wala lijjatuwuñu leen su boobaa tamit mën naa métti su ñoom métti seen wajur te seen wajur yi sonn nañ de ndax ajuma li ñuy daj di dem di visiter ji dëgg dëgg dagg paas fii ba njaareem te ni dëkk bi mettee kenn waxul loolu nag mi ngi bëgg ay doomi Tuubaa lañ nag de ay doomi Tuubaa lañ nañu taxaw seen xeex pour ñu am seen liberté kon loolu maa ngi ci woo ñëpp bi ci des mooy euh, le 3 novembre tamit maa ngi woo Sénégalais yëpp place de Obélisque pour ñu def grand rassemblement bu mag wan Macky Sall ne ko nga jàpp bàyyi yi nga jàpp bàyyi leen te détenu yi buñ ci tuddee ku ci mel ne Bassirou Diomaye Faye tudd ci ku ci mel ne Fadilou Keïta tudd ku ci mel ne Abdou Sylla Abdou Sylla ñaata at ak at ak ñaata weer at ak ñetti weer ak yu topp waaw un an cinq mois Abdou bi te loo xamante ne ay feneen tappale dong la boo ba léegi mu nekk ci kaso bi ñu koy seetaan loolu nag ëpp na kon libération Abdou Sylla moom lu ñu ñor la te dinañ taxaw xeex Abdou Sylla ak Fadilou Keïta ak moom maanaam tëj ko tëj bi tëj bi yëmuñu ci de waaye dañoo dem tëj palaasam di ko métti tal di ko xor ñooñam parce que tëj la kaso di dem di yàq sa alal loolu maam ëpp na kon ku ci mel ne maam Paate Joseph Manga su ma leen limee rek maanaam ak euh, Diop Taïf ak Omar Bamba Diop surtout Omar Bamba Diop Omar Bamba Diop nga xamante ne doomu daara la kon Omar Bamba Diop tamit war nañ ko mën bay parce que kaso ba la moom tamit ci biir otoom lañ ko fekk daf koy jàpp kon ku ci mel ne Omar Bamba Diop moom tamit nañ ko bàyyi nu mu gën a gaawee kon daal ñooñu ñëpp ma tudd ñaanu ma yàlla nag balaa la 3 ñu nekk fa mais daal la 3 maa ngi ñëwoon ñëpp képp kuy sénégalais képp kuy bëgg réew mi nga ñëw placé obélisque ñu mars mars boo xam ne dañu woon Macky Sall ne ko arrêté li ngay def dara du ci dëgg dara du ci yoon tey Ousmane Sonko nga ànd ak moom am dara xëy suba daf koy war moom yomb na loolu. ndax am na ñoo xamante ne ginnaaw yàlla bu ñu nekkee maire wala ñu nekk ay député wala ñu nekk leneen ginnaaw yàlla Ousmane Sonko moom moo tax. pourtant le juin 2022 barke Serigne Touba laa woo laa laa woo Ousmane Sonko ñuy waxtaan man ak moom 2022. barke Serigne Bamba ma ne ko Khalifa Sall teyal ci moom mu ne ma ah parce que boobu dafa am ma wax ne ma Khalifa Sall démb moom ak Macky Sall ñoo reerandoo. ma ne ko teyal ci moom ma ne ma ah sëñ bi looy wax ni man ne ko moom ak Macky Sall maam réeroo woon ma ne ma déet waay ma ne ko waaw ma ne ko te li ma lay wax di ma ne dina la bàyyi te boobu yàgg na 2022 ma ne dina la bàyyi tey dina nekk candidat bi des mooy mooy nekk candidat wu maanaam tubaab bi tey la ko waxoon lépp tey jii nekk na parce que Khalifa Sall dafa wor dafa man la njëkk bi mu génnee man la njëkk a war kon yaakaar naa ne bu wooree Ousmane Sonko tamit daa jël aw mañanam rek waaye système bi fi nekk daal ñu fi installé système bi la war a changé te it may wax Sénégal yi ne nañ ubbi seen xel yi xippi seen bët yi xool élection yii di ñëw mu neex Macky Sall mu naqari Macky Sall Ousmane Sonko day bokk par parce que li tax Ousmane Sonko di bokk mooy ñun Sénégalais yi parce que daf ne man sama bokk élection yi du Macky Sall du ay conseil constitutionnel wala yooyu yéen ñi nga xamante ne yéen askan wi ci yéen laaju te askan wi ñëpp nee nañ waaw nee nañ Ousmane Sonko la kon nag comme que nee nañ waaw ñun ñooy porté combat boobu ba mu bokk ci élection yi far mu neex ko mu naqari ko kon nañu waajal ñun ñëpp waajal parrainage yi waajal tamit élection yi fexe ba daal keroog ëllëg 25 février ñu ne Macky moom yóbbu nañu xam nga élection yi 24 mais le 25 rek ñu ne moom Macky Sall yëkkati na ba ci kaw góor suuf parce que loolu rek la bëri mérito kon képp ku ànd ak moom teggi leen ko képp ku far ak moom teggi leen ko képp kuy wax ndax Macky Sall bu leen ko xool seen réew ngeen yor te da ngeen ci bëgg changement te changement bi ngeen ci bëgg force régime bi dat fi jógee force tamit système bi tamit dat fi jógee te pour xeex système bi mooy nga xeex Macky Sall kon loolu lay woo ci loolu lay woo askan wi di ci woo Sénégal yi di ci woo ñëpp wax dëgg yàlla li nekk ci xol bi làmmiñ bi sax da ko mënut futu ndax sama xol dafa jeex tàkk ndax réew mi ni mu mettee ndax tey ji boo xoolee xale yi xale yi jël gaal gi ndax lan ñàkk yaakaar xale yi nga xamante ne ñu ngi dee ci géej gi seen ay ministre génn duñ ca sax wax ba jaale leen wala dem wax ba nent wala mu dem ba seet leen manifestation yi am ay nit gaañu ay ministre dëpp dafa bokk ñoom ñoo jaal ji ñoom ñoo gaañu de mu mel ne léegi Sénégal kon dafa am ñaari Sénégal Sénégalu Macky ak Sénégalu maanaam askan wi boo boo boo bokkee ci askan wi boo gaañu leen ci ay manifestation yooyu duñu duñ ñëw daal lay jaale si te pourtant boo bokkee fee de nekk nervi ba bañ rey la ñu sol seen i koppati sol seen i dem naa nen na ngeen jaale ji kon ñun ban Sénégal la nekk ban Sénégal la ñu nekk te loolu nag yéen a ko mën a saasa te ni ñu mën a saasa rek mooy ñun ñëpp ñu àndandoo booloo nekk benn fexee xeex système bi si nekk loolu nekk koy dindi amul leneen di wax ne tamit ñu ngi waaj a tamit tournée boo xamante ne xam naa sëñ Moustapha dina fi ñëw képp koo xamante ne jàpp nañ la nga nekk Touba wala foo mën a nekk dinañ dem seeti say waajur la nga xamante ne war na fa ci wàllu dund lan ca man suñu képp la kattan suñu suñu alalu bopp dinañ ko def parce que ñoom ñu nekk ci biir metti na parce que am na koo xamante ne Serigne Fallou xam moom ngi xale Touba yi moom bi mu ma waxee ba tey jii may wax ak yéen man maa yor dépassé parce que dañoo nekk nekk ci néeg bi mu ñëw ne ma sëñ bi man de sama kër man maa doon xëy dem li jënd ci dépassé su ma xëyee li jënd ak 3000 wala 4000 ñu joxe ñu lekk yenn saa yi sax lañ lañ añewoon démb moom la ñu añewaat dañ ko fanaanal daan añewaat kooku xoolee kooku ñoo koy jàpp-jàpp yóbbu bi ñu ko jàppee yóbbu mois 15 jours nanguñu kenn kat fee gis soxnaam da doon dem di yalwaani ngir ñëw mën a dundal maanaam famem mu wax ma ko ma ne ko à partir aujourd'hui lépp la ci war leen naa ko def ma woote ñu yóbbu te ni ni amee noonu noonu la amee yeneen ñoo seen famille tamit maanaam noonu la mel kon Macky Sall na am yërmande ci ndaw ñi na am yërmande ci xale yi na am yërmande ci am réew mi parce que réew moo xamante ne ñëpp sonn nañ war ngaa mën a xoolaat fee teg sa tànk war ngaa xoolaat tamit maanaam li ngay doxalee kon ñun ñi nga xamante ne li euh, ngi waat pour dem seeti mbokk yi seeti famille di waat tamit tournée fépp fu ñu nit nit ñu woo ci senegal dinañ sol suñu tànk dem fa ngir réew mi fépp fu ñu nit war a dinañ dem waxtaan ak yow ngir ëllëg système bi mën a changé diaspora bi tamit noonu diaspora bi ñu ngi waaj benn tournée boo xamante ne dinañu ci yéen ñëpp ku ci nekk ngeen toog xaar tey xam ne Ousmane Sonko moom leen nit mën a wax élection yi moom moom gën a ci bokk waaw élection moom du am Sénégal mukk ci Sonko bokk ci loolu moom c'est impossible amul lu ñu négocier amul lu ñu waxtaan kon nag am na loo xamante ne dañuy bàyyi si Moustapha Diouf rek mu eggale ko sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp journaliste yi yéen tam ñu ngi leen di sant ndax yéen chaque jour wax dëgg yàlla ngeen bind bind ci man wala ci kenn wala ci keneen mais yéen seen liggéey rek moo leen ñoom seen liggéey moom dafa des bu baax a baax waaye nag duñu leen ko xoolee ndax yéen te am na ñoo xamante ne maanaam seen film rek la liggéey seen film mais am na ñoo xamante ne maanaam seen poste la ñuy liggéey waaye yéen ñi ma gis fii xam naa ne loolu loolu maanaam bokk lañ parce que yéen ñi kenn ku ci jox ñaar dërëm moom da ngeen a ñëw ak seen i caméra ñëw ak seen kon sant nañu leen su ma sant ñëpp sant ma